Boubacar Seye lay wuyoo sëñ bi euh, maa ngi lay nuyu. Jacques maa ngi lay fay. yow yaay njiital ONG Horizon Sans Frontières ñu tàmbale waxtaan wi ak li nga xamante ne moom lañu nemmeeku ca Gambie muy jàmmarloo yi tat diggante ay sénégalais ak ay gambien ba sax am bakkan bu ko rot bu ci yéen ñi di taxaw surtout émigré yi ban jàngat ngeen ci am. waaw xanaa di di ñaawlu li am Gambie. Euh, di woote aussi woote jàmm. Euh, ak woote calme ak sérénité. Hmm. Euh, parce que tey xel mënut a nangu ay tension yu am entre Sénégal ak Gambie. Hmm. Euh, damay wax ni sax du du ci intérêt Sénégal du ci intérêt Gambie loolu moo tax ma ni tey il faut que àddina bi il faudrait que sénégalais yi ak Gambien yi ñu revenir à la raison toog waxtaan. Hmm. ndax mënul na saxal diggante yi rataaxa bi mhm. waaw waaw parce que dafa nekk ñaari dëkk yoo xam ni pratiquement euh, benn lañu euh, euh, même làkk yi ngay ngay dégg même peuple bi la rek li leen séparé rek moo dee moo des tracés géographiques mhm. di fàttali aussi dëkk bu mel ni Gambie sénégalais yi yàgg nañu sol ndax mhm. ñoom damay wax ni sax sénégalais yi seen deret tuur na pour Gambie Euh, am jàmm pour Gambie am am démocratie euh, gis nga le ka Samba ku koy Saña le cas aussi Yaya Jammeh daf ko wone loolu moo tax tey euh, ñuy interpeller le président Barrow pour mu jël ay matuwaayam non seulement pour calmer les Gambiens mais aussi pour restaurer la paix mm. aar aussi doomu sénégalais ya fa nekk c'est sa responsabilité historique parce que loolu moom mooy Sénégal bi mais que ñaari dëkk yooyu di rayante wala ñuy menacer ay sénégalais yi fay nekk bay lakk ay mbir loolu nekkatul Sénégal bi loolu loolu loolu loolu rafetul entre Sénégal ak Gambie. Mhm. bu ñu jógee ci diggante Sénégal ak bi ñu wax ci lu soxal Sénégal ay bis yi ñu wees dund nañu ay xeetu manifestation yu métti ay bakkan di ca rot yàqute tamit ñu nemmeeku ko gannaaw lu ñu tegoon loxo opposant bi di Ousmane Sonko euh, bëri na lu ñu ci nemmeeku ne ay position ku jégi doon benn am sax société civile ak ay mouvement citoyen yu ca bokk ngir kon taxaw Ousmane Sonko dëgg la ONG sans frontières da ngeen ab politique du ngeen yëngu kon ci wàllu politique waaye yow ban gis-gis nga ci am naka nga dundee loolu. waaw xam nga événement yi secoué actuellement le Sénégal après man sama sama sortie d'emprisonnement. Hmm. Euh, damay wax ni euh, rafetul sax par si image bi nga xam ni moom la Sénégal di joxe bitim réew. Hmm. parce que nag sénégalais yi ñu ñu nawloo woon nañ Sénégal dama wax ni vitrine la porte d'influence la. ba tax na événement yu demee nii euh, rafetul. Euh, rafetul gis nga euh, toog nañu un mois yoo xam ni ak sama emprisonnement ak bosu Ousmane Sonko euh, pratiquement mu nekk à la une sur le plan international hmm. loolu dafa dafa dafa joxe benn image boo xam ni toute image boobu la ñu xamoon ci Sénégal parce que Sénégal référence la hmm. ba tax na man li ma jàpp mooy tey li am ni war nañu pousser ñun ñëpp à la réflexion euh, à un changement de paradigme à l'apaisement euh, parce que Sénégal euh, kenn xamewu ko violence le Sénégal n'est pas un pays de révolution mais c'est c'est un pays en progression hein bien que progression yi lente na mm. mais euh, de façon citoyenne euh, le Sénégal n'est pas un pays soumis n'est pas un pays à genoux mais c'est un pays résilient mm-hmm. moo tax nag suñu jógee rek Euh, suñu jógee rek day indi situation yu demee nii euh, tey nag euh, ñëpp war a toog ñu waxtaan regrouper toutes les forces vives de ce pays là alors pour mën a pour mën a jàmm mën a mën a mën a am ci dëkk bi parce que li ñuy xaar nag mhm. li ñu war a boole moo ëpp li ñu war a xàjjale parce que tey gis nga feebar bi li mu indi sur le plan économique pratiquement Euh, économie yi ëppoon doole ci àddina bi dañoo mujj daanu. Hmm. rawatina dëkk bu mel ni Sénégal. je crois que nag tey dañu waroon pousser euh, la grille de réflexion euh, sur un Sénégal post coronavirus. fexe ba sénégalais bu feebar faju fexe ba sénégalais bu bu bëgg a jàng jàng fexe ba sénégalais bu xiif lekk fexe ba sénégalais problématique yi nga xam ne yëpp moo touché la pauvreté ñu koy xeex ba nga xam ni tey dëkk bi le Sénégal Sénégalais yi dinañ fi mën a vivre dignement surtout avec cette nouvelle ère géopolitique qui s'ouvre au Sénégal mhm. je crois que le défi devrait être à ce niveau-là pour loolu nag il faut que ñu arrêter la politique politicienne Sénégal le pays regorge de potentialité le pays regorge de compétences aujourd'hui il faut que euh, ñu tënk leen sur euh, l'expertise et la justice sociale foofu la fay bi nekk foofu laay ñaax aussi kii nga xam ne tey moo réew mi pour mu à la réconciliation et à l'union de tous les fils de ces pays-là pour ñu tabaxaat parce que dafa jot tey ñu tabaxaat parce que li am après gis nga avec avec feebar bi même la mondialisation a pris un coup la notion d'interdépendance dafay am problème asymétrique euh, symétrique yooyu yëpp lu ñuy xoolaat la ba nga xam ni daal tey ñun ñun war a xoolaat suñu bopp mettre tout le monde dans une dynamique de travail pour mën ensemble ñu tabaxaat suñu réew. Mm-hmm. loolu moo gën complot yi loolu moo gën xuloo loolu moo gën xeex bi ñun ci loolu la ñu woo addina bi ci loolu la ñu woo Sénégal. Mm-hmm. loolu mooy mission Horizon sans frontières qui est lien de concorde entre les peuples. nee mm-hmm. nga euh, xew-xew yi tax na ba Sénégal wane beneen image loolu ban jeexital la mën a am euh, ci biti réew léegi nag la ñuy xoolee ñun. waaw mais wax naa ko léegi li am Euh, rafetul ci Sénégal parce que Sénégal ñu naw loolu la ñu loolu boo xoolee institution internationale yëpp boo xoolee ay sénégalais ñu nga fa euh, doomu Sénégal dañ ko respecté woon a tim réew parce que le Sénégal dafa am lu fi yàlla daf waaw dafa am lu fi yàlla daf loolu nag buñ ko yàq loolu ñu ñoo ko mën a téye suñu bopp moo tax il faut que ñu changer il faut que ñu xoolaat li am nii je crois que euh, war nañu mën a pousser daal ñu xoolaat nu ñuy doxalee xam ni nag dëkk bi ñun ñoo ko bokk lu réunir autour de l'essentiel mais su fekkee dëkk bi dañ ko bëgg a tënk ci ay complot euh, kii neexuma naa ko faagagal que le lii ma loolu je crois que euh, du jëme Sénégal kanam. Mm. Euh, ñun nag tey nous sommes embarqués dans le même navire te su suuxee ñu ñëpp lay suuxal. Mm. vu la position géopolitique et géostratégique du Sénégal je crois que waratuñu mën a sax taxaw di foowe Sénégal wala ba Sénégal di dellu ginnaaw ba ñu ñu ŋàññ sur le plan international. yaa ngi wax kii neexuma naa ko fa naa ko faagaagal ndax yow da nga jàpp ni ci cas boobu nga bokk gaaw bañ la tege woon loxo bu yàggul dara. waaw mais man lan laa def man damaa fekk ci sax euh, le président de la République euh, dans sa démarche de gestion transparente moom moo ko woote man may yëngu ci immigration xale yi di dee ci gaal gi jeunesse bi nga xam ne mooy yaakaar amatuñu espoir ba di dee euh, mani xaalis yi nga xam ne dugal nañ ko Sénégal dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine xaalis yooyu est-ce que kon fi mu waroon dugg dugg na fa parce que xale yaa ngi gën a dee. Hmm. su fekkee fi mu doon dugg dugg nañ fa nañ xoolaat quand même les axes et orientations parce que efficacité amul man lii rek laa wax te fi ma ko waxee moom mooy may may profité di di remercier Aline Badara Cissé parce que dafa organiser benn jour de réflexion avec ses homologues médiateurs africains. Hmm. Euh, thème bi c'était l'immigration clandestine man nii mën naa ko animer. bi coow li bëree ki nga xam ni moo représenté woon li li l'union li l'union européenne ni ma Boubacar ñun de li ñu daf bëri na de waaye boo xoolee mujjul fenn parce que xale yaa ngi gën a dee donc il y a un problème bis boo ma joxee sa mail nag dinaa la yónnee sax li liñ ci dugal ñun ci alal. Hmm. ci année yi passé ma jox ko sama mail mu yónnee ma ko deux semaines après sax daf ma recevoir ñu toog ñu waxtaan xool na ñuy def pour saafara bi ma gisee mail bi dama jaaxle parce que lu mat plus cent dix huit milliards de francs CFA dugal nañ ko fi ci man la ma jot parce que du ñu waxantu wala du ñu contre bay wax lu amul. Hmm. alors biñ ko jotee boo xoolee si question bi ma posé la depuis plus d'un li tax ñu soulevé ko tey kon am na ñoo xam ne jóg nañu rek pour toroxal Boubacar Seye jóg nañu pour nax président bi ni ko Boubacar ni daf laa contre man du ma contre doomu aadama parce que yéene par exemple mu échoué moo yéene Sénégal président bi daf fi nekk rek pour un temps dafay dem kon na ko ñëpp jàppaleen su su jeexalee mu dem Sénégal continuer loolu la ñu xamee Sénégal alors loolu laa man de. Euh, xaalis euh, boobu est-ce qu'il serait bon aujourd'hui dans les perspectives de solution ñu xam xaalis boobu kuñ ko jox ak fu ñu ko dugal parce que xale yaa ngi dee ba léegi lii rek laa wax c'est des questions euh, d'économie politique mm. hein euh, euh, euh, sur des fonds fiduciaires c'est des questions de relations bilatérales mais j'interpelle aussi l'Union européenne loolu daa def en tant que organisation en tant que citoyen dans ma mission d'alerte et de veille dans ma mission de sensibilisation pour le président bi ah monsieur le président xaalis bi ñu fiy dugal est-ce que yow gars yi ñu ngi ko jox ak ñooñu nga fal ci euh, agence yooyu ak ministère yooyu est-ce que ñoom fi ñu ko war a dugal dugal nañ ko pour lutter contre l'extrême pauvreté parce que xale yaa ngi dee aussi et votre responsabilité est engagée voilà lii laa wax alors euh, euh, ma egg si Sénégal ba pare changé suma biir pour ñëw fekk si leen leeral leen loolu jox leen le document alors mu jur lii mu jur ba ñu ma des questions de santé ma jàpp nag. Euh, mérité wu ma un tel traitement parce que ma ci dëkk bi may troxalee on me de prison en prison ba indil ma ci jàngoro boo xam ni tey daf ma nar a topp à ma koy fàcc alors euh, j'interpelle l'opinion internationale lii la ma ci jëlee d'ailleurs même le conseil européen s'est saisi de ce dossier mmh. ma ma jàpp ni tam na euh, yii war na mën a jeex Sénégal parce que tey sama emprisonnement dafa dafa poser la question de l'insécurité judi juridique mmh. bi nga xam ne nous sommes tous exposés Euh, moo tax may woo ñëpp quand même pour que ñu érigé wu en sentinelle hein pour euh, euh pour défendre euh, le respect de la dignité humaine. Hmm. parce que tey li am c'est c'est c'est c'est c'est c'est une question de de de de de de de de de de de droits humains dans sa déclinaison démocratique. Mmh. Mm-hmm. à travers la liberté d'expression et de manifester bien entendu ñu def ko dans la règle de l'art dans dans le respect de la constitution parce que ñun wax ñu lu dara poser question mm-hmm. euh, mon incarcération aussi dafa poser euh, des problèmes euh, ci question euh, séparation des pouvoirs et, et liberté euh, liberté d'indépendance et, indépendance de la liberté parce que tey il faut que ñu fexe ba yooyu tey ñu dëgëral ko ba mu nekk tey euh, le socle et le ciment de notre démocratie su ko dafu rek nous allons vers le chaos parce que ñun ñoo bokk Sénégal ay doomu Sénégal lañu ñun ñoo mën a tabax Sénégal le président de la République devrait mettre le Sénégal dans une dynamique de travail xam ni moom moo moom moo yilif ñëpp alors euh, ñu bañ a jël pouvoir bi di ko utiliser euh, pour di toroxal ay doomu aadama ça a été mon cas ça a été le cas de Ousmane Sonko euh, peut-être ça sera le cas ëllëg ñan lay nekk am na ñoo xam ni dañuy def lu dul yàq c'est-à-dire qu'il menace la cohésion sociale Boubacar hmm. de def la contre Kële de def la contre ba nga xam ni tey ñooñu ñooy dugal président ci ay erreur alors su su su problème amee ñu daw la preuve à que gisoo à moment donné ñoom ñëpp daw nañu ils ont déserté parce que qui va rendre compte c'est le président de la République hmm. alors je crois que tey di am nii war na ko pousser war na pousser tout le Sénégal ñu fexe ba nag yii dootu fi amati. Hmm. Euh, toroxal nit doomu aadama kenn ko toroxal. ça a été xamuñ ko lii laa dund. Euh, mais euh, damay rappelé rek di firndal li euh, man gisoo du ma saaga du ma xas lépp dama ko teg ci loxo yàlla yàlla dana àtte lépp. Hmm. mais nag li nga xam ne mooy sama liggéey ma koy def ci àddina bi te waxuma Sénégal àddina laa wax je crois que mérité woon naa ci leneen lu dul état du Sénégal lu dul ay toroxal mais du tax ma arrêté du tax ma bàyyi ko tey laa ci gën a firndaal sama bopp tey laa ci gën a am engagement pour la paix la sécurité en vue d'un développement humain lii moom ma tax a jóg ma xal dox ci àddina bi di ko dafal Sénégal di ko dafal dëkk bu nekk ci àddina bi. Mm-hmm. pour jàmm am parce que immigration moo yore àddina. tey il y un échec. Mm. des des dans la gestion des flux migratoires. Mm. loolu la horizon sans frontière jóg ni nañu xoolaat migration moo yore àddina nañu yërëm doomu aadama yi parce que dañu nekk dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations ñëppay tukki suñu xoolaatee loi yi protéger doomu aadama yi jàmm day gën am. Mm. ci gàttal gannaaw waxtu wi ñu xaw a xoj euh, euh, ci pexe yooyu wax na ba Sénégal euh, nguur bokk njiitu réew mi ci boppam jël ci ay dogal ne kon léegi gannaaw xew-xew yi dina gën a farlu ci soxlay ndaw yi rawatina ci seen wàllu xëy yaakaar nga ne loolu ab pexele ngir euh, wàññi wala ba ko dakkal immigration clandestine. waaw xam nga boo xoolee fan yi passé ñu ngi dund yaa a eu des interprétations tendancieuses euh, yuy déguisent même euh, le ras-le-bol se déchaîne benn expression rek. Hmm. je crois que message la boo xam ni tey dañ ko war a pour mën ci jàng dara parce que jeunesse bi moo jóg tey parce que cette jeunesse la dafa soxla justice dafa soxla damay wax tax justice sociale. dafa soxla équité dafa soxla aussi euh, ñu respecter le principe d'égalité devant l'employabilité tey cette jeunesse dafa soxla respect dans ses conditions euh, très structurantes et structurées boo xoolee gis nga seeni méthode mais rappelez nous avons une jeunesse internationale avec un degré de pénétration mobile supérieur à 60 pour cent xaw nañu li xam ci àddina loolu moo tax seen exigence sur le plan euh, politique et et et et dafa dafa am doole. moo tax tey il faut que ñu xoolaat tey beneen modèle de société beneen contrat de social boo xam ne tey jeunesse bi dina ci gën a mën a gis boppam il faut ñu déglu leen décrypter pour ensemble ñu trouver des solutions pour mën a réduire loolu nag dafa laaj un travail en amont et en aval moo tax tey euh, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine puisque la migration est transversale la la la proposition bi ñu waxoon le président de la République moom laay delluwaat rek gisoo keroog am na benn euh, benn fondation bu ko Allemagne bu ko wax politique migratoire une encherche autonome ou bien un ministère chargé de migration internationale parce que migration dafa transversale dafa laal lépp ba ci hmm. feebar bi gis nga daf ko laal migration euh, enseignement supérieur migration pandémie migration développement co-développement migration euh, sécurité les enjeux sont sécuritaires gis nga cette jeunesse là suñ si jógul dafay dafay nekk une bombe sociale avec des enjeux sécuritaires yoo xam euh, les conséquences sont incalculables hmm. ba nga xam ni loolu ministère boobu su ko tegee président bi day saytu les problématiques liées à la jeunesse pour que ensemble ñu mën a dégager des pistes de réflexion pour que ensemble ñu mën a teg des orientations stratégiques pour canaliser cette jeunesse là mmh. pour que ensemble ñu mën a teg des orientations euh, Euh, euh, stratégique pour réduire les risques à des proportions tolérables loolu moom mooy tey la grille de réflexion bi nga xam ne tey moom ou la proposition bi nga xam ne moom la ñu xalaat président bi teg ko pour jàmm Sénégal parce que nag jeunesse mooy mooy moo yore réew alors il faut faire de la jeunesse une priorité il faudrait cette vision prospective altruiste et humaniste pour les générations à venir suñ ko def rek nous allons vers le chaos laaj sax waaye waxtu wi xoj nañu ñu gërëm la bu baax Boubacar Seye ñu ngi lay gërëm Jacques di leen remercier aussi pour soutien bi nga xam ni indil ngeen ma ko biñ ma téye alors euh, j'en profite pour remercier toute la presse nationale et internationale parce que tey su ma toogee fii di waxaat c'est grâce à votre mobilisation kon nag li ngeen bëgg ci réew mi FM j'en profite pour remercier euh, Manip mm-hmm. euh, bi nga xam ni damay wax ni en 2014 daf ma defal une consécration sociale une reconnaissance sociale. Mm. Euh, dafal ma une nomination euh, du corridor africain. de de l'action sociale kon kooku du ma tëjlu ak duma ma complot donc dëkk bi am na ay nit ñu baax ñu fi nekk te tey mënuma leen fay maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal li ngeen bëgg ci réew mi itam yéen ko xam yàlla na ko suñu borom dafa leen ko